asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yow sama mbokk jullit ndax xam nga ngëneelu màggaayu fan yi nga nekk ndax xam nga ngëneel yooyu yaa ngi ci bis yi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf cee giñ mu ne wal wala yaalin maa ngi giñ ci fajar waaye borom bi subhaanahu wa taala daa di giñ ci bis yi nga xamante ne moom la ñu nekk muy fukki fan yi nga xam ne moo jiitu ci weeru tabaski muy fukki fanu zilhijja borom bi subhaanahu wa day xam nga ne lépp lu mu waat rëy na lépp lu mu waat day lu màgg la lépp lu mu waat lu jar a bàyyee xel la ndax yaa ngi bàyyee xel yenent bi sallallahu alayhi wa sallam seede ngëneelu bis yooyu daal di ñuy ñaax ci ñu taxawee ay jëf yu baax ndax borom bi subhaanahu wa day jullit bi taxawee ci ay jëf yu baax loolu day moom borom bi subhaanahu wa taala daf koo bëgg kane ci yeneen bis yoo mën a taxawee lu baax yii da cee gën a yay ndax borom bi subhaanahu wa taala bokk na ci bis yi nga xam ne dafa bëgg jaam bi taxawee ci li nga xam ne moom mooy ay jëf yu baax kon fan nga toll ci sens bi nga am yow sama mbokk jullit na ñu tuub dellu ci borom bi na nañu jéggalu sunuy na ñu bari loo xamante ne dañuy taxawee ay jëf yu baax la an la borom bi subhaanahu wa taala defal ñu tawfiq